droit, la justice doit fonctionner dans tous les sens. Effectivement, ce sont les gardes les plus proches du président, de la, du président Sonko. Les gardes les plus proches, ils sont au nombre de 5 ou de 6. effectivement, lorsque le président Ousmane Sonko est venu au tribunal, au palais de justice de Dakar, pour pouvoir subir son interrogatoire, son audition au fond, des gendarmes, est venu procéder à l'isolement des gardes les plus rappro les plus proches du président Ousmane Sonko avant de les faire arrêter et de les conduire immédiatement à la brigade de recherche de Mbour, c'est-à-dire la gendarmerie de Saly. Lorsque nous avons appris l'information, et je précise que nous avons fait presque le tour des brigades et des commissariats de Dakar pour chercher des informations, savoir où ils ont été conduits, Malheureusement, arrivé à chaque brigade, notamment la section de recherche, la sûreté urbaine au niveau du commissariat central, la division des investigations criminelles, et ainsi que les autres brigades de la place, on n'a trouvé personne et la réponse est la même, ils ne sont pas là. Arrivé à Thiès, un des gardes nous a contactés pour nous dire qu'effectivement ils ont été amenés ici à Sali, autant pour moi. C'est pour cette raison, sans désemparer, nous le trajet et je Euh, vraiment, est-ce que cela aura des conséquences par rapport au Némé qu'on a Ça, c'est une autre réalité, Parce que je ne peux rien vous dire par rapport à ce qui va se décider demain ou après-demain. De toute façon, nous avons un agenda, nous avons un programme et nous allons à la rencontre des Sénégalais dans les, plus, dans les profondeurs de, de, de notre territoire. Nous allons à la rencontre des militants, à la rencontre des dignitaires religieux, des imams, des chefs de quartier, des chefs de village, des, des curés, des abbés, bref, à la rencontre des citoyens sénégalais. que vous n'avez pas peur aujourd'hui de la, de la sécurité d'Ousmane Sonko Vous n'avez pas peur de la sécurité d'Ousmane Sonko étant donné que Écoutez, c'est pour cette raison que je dis que présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il est dans une situation de vulnérabilité et de précarité par rapport à sa sécurité. Le protocole va se réunir et Inch'Allah, nous allons peaufiner une position par rapport à cela. Le parti politique va se réunir, le bureau du parti politique va se réunir, le parti passé va se réunir pour essayer de dégager une stratégie. Il est hors de question que le président Ousmane Sonko se déplace sans garde rapprochée. Il est hors de question dans ce pays. Par rapport à la juridique, euh, après cinq arrestations, qu'est-ce que vous comptez Écoutez, nous sommes là pour s'enquérir de la situation de Et sans désemparer, nous allons nous rendre à la brigade de recherche de Sali pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on leur reproche. Mais à mon avis, parce que je suis témoin oculaire de ce qui s'est passé à, à notamment dans le village de Tchiki, témoin oculaire, je pense que les autorités judiciaires ou policiers sont en de causer du tort à ces gardes qui viennent d'être arrêtés. Au moment où il y a eu des jets de pierre qui venaient commandité par une dame, une certaine Madame John, qui se trouve être chargée de mission à la présidence de la République. À la suite de ces jets de pierre venant du domicile de cette dame, les gardes n'étaient intéressés que pour la sécurité et par la sécurité du président Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire exfiltrer, le mettre dans son véhicule et prendre le chemin de Bandia pour continuer le que tour. Que dans Si aujourd'hui j'apprends Mais l'enquête va nous dire davantage ce qui s'est réellement passé. eu des blessés. Est-ce Nous avons les certificats médicaux qui attestent de ce que, effectivement, de par des jets de des gardes ont été atteints. Par devers moi, je garde les certificats médicaux. On attend le moment favorable pour déposer plainte. en wolof maître ah, tey jii ci garde corps Ousmane Sonko yi egsi na may wax ne garde yooyu ñu ngi leen jàpp jamono ji nga xam ne le président Ousmane ko mu ngi egsi tribunal bu Dakar pour ñu déglu ko ci dossier bi ñu wax ni dossier la jamono ji ñu koy déglu bi muy dugg ci bureau juge bi ay gendarme yu takku ñoo ñëw fekk garde yi fu ñu taxaw ne dañ leen di isolé pour ñu bañ a taxaw foofu il paraît que sax njëkk nañoo aménagé benn espace pour xaar audition bi jeex ñu ànd ak président ñibbi. mais à notre grande si lañ dem ci laa wàcc si suuf di laajte ñoom fu ñu nekk ñu ne ñu yóbbu nañ leen fan la leen yóbbu kenn xamul man ànd ak yeneen ñaari avocat daanaka ñu xëyee wala yendoo wër ndakaaru njaay entre brigade yi ak commissariat yi pour xool ñoom fu ñu nekk te fépp fu ñu dem réponse bi ñuy jox mooy nekkuñu fi ba ñu toogee ab diir c'est la kenn si ñoom woote ne ñu ngi leen indi sali lañ leen indi loolu ba mu amee nag xaaruñu tardé wuñu dañoo taalaat suñuy oto teguwaat ci yoon bi pour ñëw egg si xool lan moo xew kon ci lool moo tax may doog a egg si nii pour xool lan moo xew avocat la nag su ma ñëwee war naa mën a njëkkee tribunal incha allah avant may dem foofu. juridiquement lañ ngeen nar a def. juridiquement liñ nar a def incha allah dinañ leen ko wax ci kanam d'un moment à l'autre dinañ leen ko wax parce que on avisera mais li si am solo ba am si solo mooy damay ñaawlu li am. li am mooy le président Ousmane Sonko jamono ji amul sécurité garde yi ko gën a jigéen ñoom lañ téye ma koy ñaawlu bu ñu yaakaaree ni nag loolu moo tax ñuy arrêté suñu ne sax parce xamuñu ñun kon loolu benn la ñaareel ba bu yaakaaree loolu ébranlé na le président Ousmane Sonko.